bu fekkee image bi euh, yemb na rek Lamine ñu suban ko per ak ak techniciens yi nga xamante ne ñu ngi ci plateau bi bu defee ñu def seen commentaire ci ki nga xamante ni moom moo di Franc mu war a bëri comme ni ma ko waxee le premier mai arène nationale combat spécial bi war a dox ci diggante Youssou ak ki nga xamante ne moom mooy Talfa Mamadi Ndiaye aussi di doomi mbër war ci ah waaw bëri ak ki nga xamante ne moom mooy Ndiaga Thiam doomi mbër ah. Franc na jege si boog ñu xool ko na jege si perneen na jege si mu gën ko gis waaw yàqu ci dara parce que photo bi lañu jël lépp. kureplan ñu ko. waaw waaw. alors. lii aussi démb la ci moom laa jógee dem ci ëmm seen. démb loolu def face à face noonu moom. waaw li ci démb ci suba gi la. ci suba gi ah. waaw. Euh, en fait euh, Franc moom vraiment bokk na ci mbir yi nga xamante ne vraiment il est toujours mu ci biir. Hmm, mu ci biir déjà chance bi mu am mooy. Hmm. ku ne xam ne il est compétitif. Mhm. su bëri simple nekk di bëri guddeeg bëccëg. Mhm. dugg ci arène bi def turam. suy bëri aussi ba mu yàlla baaxee ko moom en moom mu nekk ci benn structure boo xamante ne. Mhm. ils sont vraiment sérieux dans les entraînements. bien encadré ku ne xam ne Jamba Academy vraiment dañuy liggéey à fond. bien encadré coalition bu rëy la. boo xoolee ñaata écurie fa nekk. écrit yi ne parcelles yëpp dañuy dajaloo. di sot di ku ñu bëri sot la mais. imagine toi nga am pour contact ak Modou Lo. Mm-hmm. am pour contact ak Gora Sock. Mm-hmm. am pour contact ak. Euh, Garga 2 Garga am nekk ci compétition moom tamit moom tam moom tam day bëree bientôt. Mm. Ah, ñëw tu ah, am am am. moom ah, Talfa mm-hmm. am déet am de la crème. ñoo xam ne tey jii amul benn mbër bu nekk ci ay guddi. Mm-hmm. loolu avantage bu extraordinaire la. Mm-hmm. ba leen ci kenn ndax coow bari ci làmb rek. mun ngaa tëb corde mun ngaa jël box mun nga yëg din mm-hmm. mais base mbër. mooy ay contact de lutte yu yoo xamante ne. non seulement di nga am condition physique. di nga am confiance di nga di nga gën sa mën a bëri mais mooy mooy defar sa yaram. yaram yaram mbër day bëri. bien ci ponkal yoo xamante ne dañuy dañuy jiñ teel bëri parce que nangu ñoo sonn ci entraînement di bëri. ñaata mbër a ñëw par exemple écurie ñoo fa doon ay cuune. catégorie mhm. li moo bàyyi wax. bu mhm. xamul sax dañuy bëree. Mhm. mais à long parce que tout le contact toujours contact da ngay dem ba mën a bëree. boo demee ba toll a bëree da ngay mën a bëree. moo tax bëri bu leen di caaxaane contact. donc Franc moom bu leen defee avantage ci combat bii. dina ko am ci non seulement jeunesse. dina ko am non seulement aussi ci compétitivité. ndax dafa bari lu muy bëree. ba pare dina ko am ci aussi euh, lu ñaan contact de lutte. et puis encore dama ko xool. démb ci télévision bi. Mhm. mu taxaw ak Bombardier gisuma lu ko Bombardier dominé ci jëmm mhm. ah sa ah ça il faut le dire taay daal la ko ëpp te taay bu ëpp sax da dee ko xolaat. Mhm. te boo xolaatee ndigg li jëm suuf da gis ne kii. franc moo dominé ci les jambes. c'est important. tan que franc yi ñoo gën a positif ci li ma gis démb ci télévision bi ah ay yëre lañ sol nag. te pare seen jëmm tolloo ci kaw ah kon bokk ñaari fi mun am kon. bu ma gis Bombardier ba xam lu may wax. waaw li nañ la woon Bombardier léegi père noo gisee forme bi. waaw forme bi euh, mu ngi si euh, ndawam. Hmm. waaw forme moom bàyyi bàyyiwu ko. Hmm. waaw bu yéegul moom du wàcc. Hmm. forme moom day moom day gën a yéeg. waaw parce que si diggu ndawam la nekk si diggu dooleem la nekk te de dafa am lu mu bëgg parce que moroom moroomam dafa jaar si Bombardier fii moroomam jaar na moom dafa bëgg a jaar. si euh, lu ko lu ko raw lay lay bëgg. te nag lii Tafa wax nii. Euh, bari sparring partner yoo xam ne ñëpp ay mbërëntaan lañu. Mm-hmm. kooku dafa am solo. Mm-hmm. waaw waaw ñëpp nga xam ne kii koo dajal rek kooku kooku mun na la daan. nga koy nga koy jéem a daan. Mm-hmm. donc fooru Tapha bi muy bëree donc li la ko waroon yëpp. ay champion ñoo ko waroon. Hmm. ay mbër yu ndaw yu aay. ay mbër yu hmm. mag yu aay. Hmm. te yooyu yëpp da daan da fexe di ran nag. di leen dajale. ku si nekk mu daan mu mu mu daan daan. bi si gën a may sax ku dee di daan mais da lay buddi ñu xool ndax ñu naan antan na ko mu di mu di mu di jëm kaw. donc avantage boobu la kii toll tey yi la la la franc ndax nag ba euh, charge boobu euh, bombardier dina ko antan mun kaa téye. wala wala foofu la ne mais moom bu ñuy siffler comme ni ñu waxoon sànq rek ak euh, Sa Thiès. Mhm. donc bu ñuy soufflé moom buy dóor gauche droite am mu nga mu nga gis ko bomba ji. est-ce que Baka euh, sa euh, Franc taxaw dóoranteeg Bombardier war na wala warul. Ah, fa mu sànni. parce que mhm. mënul bëx mënul mënul bëxër ñet rek. ne daw maa ngi si kaw kaw Bombardier mm. en kon Bombardier dina dina dina mm. mm. donc pour mu gën a mam bunta mooy foo mu xeex moom xeex ak moom Bombardier déclenché mu mu mu mun ko bëtt parce que mu Franc rek la li wut nga fexe sa loxo jóg pour nga fexe loxo jóg il faut mu jox la ko rapidement daa ne la carfal waaw trente secondes la ko mën dem wàññi def ko ba xaw ma quinze ah, ah bomb ah moom ah. Ah, ma gis naa boobu dem toog noonu rek ah c'est vrai bomb de bomb de rarement lay mel. waaw Lamine Samba kay nee na 30 ans mu ngi soog. mu ngi soog man de maa ngi koy doog a dégg man tey nag wóoruma. <laughs> Lamine Samba moo bëgg jàmm. waaw léegi nag boxeur ci combat bu franc. Mhm. ak bomb bu bomb ji avantage bagaar bi kan la arrangé ñoom ñaar ñu fay vraiment ku ngi dal tàkk. bon man pour man franc mën na ubbi avant euh, bagaar bi hmm. parce que moom moo wuti mais si biir bagaar bi. ne éviter jël coup Bombardier. Mm-hmm. oui d'accord surtout les dix premières minutes. parce que un super lourd dix premières minutes chaque jour boo dee jël coup dafa fekk dooleem. Mm-hmm. waaw. dëgg wér la. dafa fekk dooleem dix premières minutes yi. dafa fekk dooleem dafa fekk dooleem Bombardier dafa fekk dooleem. mais euh, su fekkee ne Franc peut-être entraîné na ko jàngal loo xamante tey mën na état adversaire di ko touché sans adversaire bañ ko laal bañ jël teel a jël coup parce que ay coups échange nit ay coups échange te ma ngi jël sama ñaar coup mais ma jël sa benn bu mais Franc ni mu toll noonu ci Bombardier mën na mën na touché Bombardier. te bien sûr a mën a a mën a touché. bien ah, hmm, boo ko boo ko ah. ñëwul. doo ko dugg si il faut dugg si gaaram. du ma ko pour nga dóor ko foog nga dugg si gaaram. dugg pour nga dóor. mais bu taxee feneen naan da koy jéem wala kii mën jël ko hasard. Ah. combat bi hmm. ñoom ñaar mooy li ma wax rek euh, franc moo soxla. Mhm. moo gën a nekk xale. Mhm. kon at yëpp moom tamit moom moo ko moom. Mhm. bu fekkee adversaire na pour nga gañe il faut nga ñeme ko. Bombardier boo xoolee jëmmam doo ko daan. mais da xool yow yaay kan. da xool say qualité da xool say capacité da ngay xool li nga mën. da ngay oser pour nga affronter Bombardier. te bu ko affronté wulee doo accès si moom. ndax hmm. Bombardier ni mu bindoo la moo tax. taay gabari. gabari ni mu mel la mais bu amee accès si moom. Hmm. Bombardier bu taxee ne yëng fi bu suba doo ko daan. Hmm. bu ginnaaw suba doo ko daan. foofu foog ma dugg ci kat yi mais kat yi. Bombardier stratégie ak tactique bi mu bëree bi muy bëree Balla Gaye su ko indee si ak bi muy bëree Franc est-ce que du ko poser problème. bi mu contact bi mu bëree bi mu bëree mu bëree ak ak Balla Gaye ah. ni mu jëlee temps am. Mm-hmm. bàyyi ko bàyyi ko combat bi. Mm-hmm. taxaw jouer presque à la défensive. Mm-hmm. su offense bi jotee mu offensé. loolu bu ko defee ak ak xale bi. franc euh, bu ko defee ak franc ndax euh, du mën a indil franc problème. non non non non non hmm. non non dafa foofu la waroon parce que bële passé xam nga moom la def contre. rëg rëg donc te erreur la. mu bàyyi taxaw di di di xaar. Hmm. ba rëg rëg ñëw daal di ñëw ñëw ñëw si koom dóorul rëg rëg hmm. benn yoon jëlul benn coup. xeexul bëriwul waaw donc donc moom dafa warul warul sax jouer si loolu si ah, ah, ak xale bi. waaw parce que bu bàyyi loo xale bi moom dina ñëw dina ñëw si koom. te li mu war a fexe mooy mu fexe xale xale xale bi xale bi ñam. waaw. mu ñëwee daal di mos kon Bombardier warul bëre te Franc jëlu ko woon. for na ko mosal. moom. mais Franc mën na bëre moom te du jël te du jël. te loolu film yaa ngi attention dama bëggoon na encore. Mhm. c'est un bon lutteur Franc. Mhm. ñu fa lépp leen duma. si Tyson dina junior. daf ko ah. kaw doo ko dafa mën a bëre. soq dafa jël koom. ak karati Forza la mujjee bëreel Forza la mujjee bëreel Forza la laalu ko Krépin mm-hmm. jógu fa nag Krépin ñu jógee la ñëw bëri mm-hmm. donc moom euh, te il n'a pas peur mm-hmm. euh, France c'est un fou ah. waaye nag gis nga Bombardier dafa yéeme daalam de. mais nag ah, ah, France c'est un super lourd. c'est un ah. katakayne ah. il n'a pas peur ah. il n'a pas peur de coup de il n'a pas peur de responsabilité. il n'a pas peur de coup de poing mais. kuy bokkuñu. peut-être ñu ñu doon bëri dañoo toll fa toll ñoom masse toll ñoom doole mais boobu jël jaay waaye ni c'est un super lourd. super lourd la. te ku am day téléphoné mais bu la dalee. c'est dangereux bien sûr moom la yore. c'est dangereux boo ma ji te sax da ko dul dóor à rek. ay compagnons. kon ñi bëri moom ñi bëri moom dañ ko wàññiwaat. dëgg la keroog keroog bu mu njëkkee teg làmba ji Iba Mar Diop ñu koy présenté. laa ne champion boobu. Ah? gisuma sax fu mu bëree ko mm. bind bi laa xool rek ma folosi bi rek ñëw teewal ma laa mbër mbër mbër ngi te gisuma fenn fu mu sëggee waaw ma ma kii kii moom dina nekk si te euh, si si bopp bopp bopp làmb ji mm-hmm. Mm-hmm. Mm. mu daan Bombardier mm. il faut mu ko hmm? mu affronter ko mu daan Bombardier il faut mu affronter ko xale amul lu muy ragal amul lu muy perte Bombardier daan ko wàññiwu ko dara mais bu daan Bombardier moom buntam ubbeeku na. mais quand même dama gis ne aussi Franc dina bëri technique mais euh, day bëri xadar doole en tout cas. li ci mm-hmm. ëpp nag moom euh, bal la ñaan loxo patam patamee la lalli la li ci ëpp loolu lay bëree doole mais est loolu mën na ko réussir devant. un Bombardier qui defee facilement pas moins de cent mm-hmm. waaw parce que euh, moom it dafay mais forte technique Franc. <laughs> il est que day muy employé. Mm. wetam gi bu la bu la xëse ba ba ba ba roofu la mm-hmm. bu teg la si wetam gi rek am na clé gu mu lu mu lay lu mu lay pincer da lay ëlbati ëlbati parce que yaram yëpp dafa yaram bi dafa nam teel normalement Bombardier warul moom nangu mu ak mu mu àgg ko foofu mm. dafay wër ndomb en tout cas su ma tuur ah, waaw si si déviation gu mu koy def déviation di tête mën na mën na ko tuur tuur tuur rapidement mm-hmm. coach foo bëggoon def euh, Franc il est bon bu yàkkamti wëlee Hmm. mën a sori ci làmb. si si si si si làmb yàkkamtiwule. plein d'avenir en tout cas. Hmm. un champion à devenir ah. parfois day forcer ay combats yoo xam ne jotagul. Hmm. avant combat Bombardier taxaw day forcer ay combats yu bëri. Oh, bëri taw na galéré bañ a bëri ñu kii. mais gis nga am na avenir. bien sûr te Modou xam naa ne am na si ñoom am nañu gis naa complicité bi gisuma leen nii xaw ma leen nii. mais gis naa complicité bu am seen ñoom. am na yaakaar bu baax si moom. a bu rëy la. gis naa sax Bombardier par exemple Modou Lo naan ko na diw jiw ku laaj Bombardier ku laaj euh, Modou Lo mu ne ko na jël franc. jël am na avenir bu bëri. Mm-hmm. macha allah am na avenir bu bëri de. Mm-hmm. nekk bokk na si yaakaar parcelle à part Modou Lo. chef de file de jàmbaar combat bi mm-hmm. daf ci war a prouver. daf ci war a prouver. daf ci war a prouver. warul am ci moom la gën a métti parce que moo soxla pour dire vrai. émission bi dañ ci war a ñëwaat lu gën a yaatu nga ne bi combat bi jotagul. combat bi mercredi bi di ñëw la. luy loolu tey parce que émission day fekk combat passé na. waaw lay doon. mercredi jeudi ñu ñëw fii. daf ko débriefing. waaw rajaxe rajaxe ko yàlla kii daan daan kii daanu daanu rek. kii daan bu ko defee kii daan ñëw kii daan ñëw. Ah, kii ah a ñëw ki ñu daan du sawar a ñëw souvent kon kii daan évité nañ ko. Ah. bu dee boobu jéem moom bu jarul muy dem mbuur nañu ah dina la guddi. bu <laughs> dee franc la moom mun na dem parcelle sangu feete ba pare doo ko ñëw. waaw sa moom sax ah, ana Bombardier. Hmm. waaw war ñu Bombardier Lamine Mbow bu fekkee photo Bombardier bi pare na. Lamine Kay war ñu ko ah. Lamine Kay mais mais combat bi yëpp ban genre combat ngay xaar. mercredi diggante franc ak Bombardier pour fàttali ne làmb ji mercredi la. Hmm. mercredi premier mai fête du travail. ok télétravail. ah c' est bientôt c' est bientôt donc c' est dans moins d' une semaine. Yeah. bon en fait Bombardier moom képp koo daan nen rek nga ko daane. mu lay doos nga sonk mu lay téye nga rëcceeku mu rëpp. Mm-hmm. ci ëpp. yenn yi sax moom mooy daanul boppam. exact parce bi Eumeu Sène dafa reculer rek mu topp ko rek. Mm-hmm. avec le poids de son corps mu rëpp. Mm-hmm. nekk ci déséquilibre. même combat am ak Gris Bordeaux boo ko xalaatee. Mhm. ci xeetu genre bi mel noonu la. si si. seen di ginnaaw Gris la jar. Ah. dem daanu ji. Ah. donc la maîtrise de soi. Mhm. moom wa léegi loolu moom li mu amaloon Bombardier mhm. war na ko am léegi. bu ma demee ba am expérience. waxtu sax sonn sànni ko pain bi yuree ci ngelaw li. lu mu sànni Bombardier fort dal logique bi. parce que li moom maîtriser la frappe. ndax koo xam ne que yaa ngi dem sur le haut niveau. di yéeg MMA di fight. war nga mën a jam direct bu jub. Mm-hmm. war nga mën a jëm crochet bu baax mm-hmm. war nga mën doon effectif boo xamante ne vraiment mm-hmm. day nekk day nekk ay ku yoo xamante ne fu mu dal nga am li nga bëgg Bombardier Dieng fu mu toll ko ganakat yi waxee léegi warta bëri loo xam dalul waaye nag ni mu doole nag mën naa doon fukk pante benn di ko dal te boo xoolaatee carrière ñi ko daan ñëpp ci ay song ko dañ koy woo ci xeex muyu déséquilibré doxa ñaar tànk yi daay jaar ci suuf le temps que muy téye daay roje ko taxafe mbaa mu daanu donc Bombardier war na mën a opté stratégie boo xamante ne dina taxaw en boxeur. di sànni ay direct yu jub. bañ a xàcc di sànni di laal. coup boo ko xàccee moom war na xam sax ne. coup boo ko xàccee waa ji gis na ko. te ay kuréel dañu ñëpp dañ koy gis. te bu lay doon day ñëw ci yow. Ah. Ah donc euh, bomb war na vraiment nettoyer. defaraat sa façon de bagarre. def approche. pour mun dóor au moins benn coup de ndax ñëpp dañ ko bàkke ne mm-hmm. benn coup de poing boobu jeexal na lamb dugg nag si défaut bi xam ne moo gën a nekk si bombardier mm-hmm. muy combat yi mu daanu yëpp déséquilibre boobu ñu koy daani mm-hmm. man dama daan wax naan toujours kii bu ma ko joxoon du ma ko liggéeyloo duma ko jàngal bëre du ko jàngal dóor mm-hmm. du ma koy liggéeyloo mouvement physique si diggante mouvement yooyu di muy rëcculu di daan rek la koy liggéeyal mu ko mu coordonné quoi waaw ah. coordination waaw man de benn yoon laa fàttaliku bombardier xaar na mooy moo moo mook Balla Gaye bu mujj bi Hmm. xaar na comme arbitre atte jàppante atte daan nga daanul yëpp day xaar. Oh, boobu daal gis na am na sa patience. lan la nag boobu mu doog a gérer moom. Hmm. fa la toll sax ah. fa la toll gérer combat mooy yoon. waaw. Ah. Hmm. mag bi yàlla may yàgg na ak yàlla ñu koy <laughs> ah, bu ko dee def di ah, xool di xool nag. na na compagnie am dal. te boobu tam euh, il di dire que ne tam nekkul cuune ci bëri quand même woon moom mu jox la bu mu sumee ko mais bi bi sumee ko lii nag ci koor gi la weeru koor gi <laughs> te moom day woor ah quand même ah waaw gis naa gis naa nag quand même aussi Bombardier ussi mhm. euh, li ma